asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéenay safoo chaîne bii di Buzz Actu an ñu ngi sàkk bu baax ngeen abonné aimé partagé commentaire like ndax kat loolu dina nekk lu nga xam ni saa su ne lu ñu daal di jàppale la. mën nañ ne moom ministre bi nga xam ni moo daal di gàlloo biir réew mi di wéy ci turu Antoine Félix Diome yor lépp loo xam ni sécurité la sécurité la fi réew. muy ministre de l'intérieur jamono guñ toll nii daal dina àddu bu baax a baax jëmee ci li nga xam ni moo di caravane kii di Ousmane Sonko muy caravane de la liberté bi nga xam ni commencé na ko ci ajjuma 26 mai bi ñu génn moom kat ministre bi moom ministre bi di Antoine Félix Diome daal dina xamale depuis ki nga xam ni moo di moom président Ousmane Sonko njiitalu Pastef bi la daal di xamle ni dina jóge foofee ca Ziguinchor muy Ziguinchor ngir kat ñëw fi nga xam ni moo di Dakar ak jaarale ko ci li nga xam ni moo di fànn ci gox goxaat yi ci réew di Sénégal ci loolee sax tax na moom mi nga xam ni moo di Antoine Félix Diome di rappelé waat bu baax a baax lenn ci population Sénégal waaye rawat na lenn ci ki nga xam ne moo di njiitul Pastef bi la di wécc turu Ousmane Sonko ngir xamle bu baax baax ak ci journée bi nga xam ni moom lañ nekkee gis nañu ay jafe-jafe bu baax amee foofee ka nga xam ni moo di Kolda ci ak xam ni jaar-jaar leen ci ay ambulance wala leen li nga xam ni mën nañ ne dina am crée dina créer baax a baax ngir kat li li ni mel du lenn du dul ful xam ni saa su ne dañuy gis ni moom njiital Pastef bi la di Ousmane Sonko daan nekkee amee ci loolee sax moom Antoine Félix Diome daan li nga xam ni moo di article 96 bi la di code pénal di xamle bu baax lenn ci li nga xam ni moo di manifestation défilé ak li ñuy làmboo daanaka loolu dafay nekk mbir nga xam ni article public la la daal di concerné te kat lii nekk na mbir bi nga xam ni moom Ousmane Sonko mën nañ ne dem na ba commencé créer li nga xam ne moo di trouble à l'ordre public ci jamono gi nga xam ni a baax rawat na am lenn moo di population Sénégal lañ koy topp ngir kat di xool ak bëgg-bëgg boobalee loolee sax na am boobule ndax convoi boobule mën nañ ne ndax nga santaane boobu Antoine Félix Diome am ba am ki nga xam ne moo di Antoine Félix Diome xam ne ne bu baax baax dina jël matuwaay ci ki nga xam ne moo di njiital Pastef bi jaanaka mën nañ ne jamono gi nga xam ni mu ngi ci caravane de liberté ba bile sax jamono moom mi nga xam ni moo di protocole chef protocole bu Ousmane Sonko bi daal di wuyee ci turu Jibril Gueye ginnaaw ni démb mën nañ ne daal nañ ko bàyyi mu daal di dellu fi nga xam ne moo di këram waaye nag dafa am li nga xam ni moo ci daal di am ndax kat ñoom quatre éléments yi xam ni la daal di àndi loon ci sécurité ba bile du sécurité Ousmane kenn bàyyiwu leen ñoom ñu ngi kon jamono gu ñu waxee ak yéen fi nga xam ni moo di section recherche bu Mbour ngir kat jamono jàppale jàppale ni bu baax a baax dañ la am li leen di toppee mooy nga xam ni yoon beneen te amuñu ci ndigal ñoom ñi lee ndax kat loolu nekk na mbir bi nga xam ne lu doy waar la ci lu mu xam ne nag moom moom addu bi ñu jëlee ci kaddu ki nga xam ne moo di Djibril Gueye xam ne moo di Ousmane Sonko daal dina xam le bu baax a baax ne kat moom mi lee lu ci munta am ba am lii yóbbu nañ leen ba mardi foofee ci kanamu procureur dañ xam nan lañ wàññeenti mujj ak gëttam ñuy wax ni bu baax di leen wéy di abonné fi nga xam ne moo di Buzz Actu 221 ndax lu fii xibaar information jàngal ñu leen koy defal salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu